asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu bi gën a sell ci nuyu te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa M-Media groupe Nour Daarayni ñoo ngi leen di ziar di leen dokkeel di leen nuyu di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jégal ñu suñu rëcc rëcc di jaay ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam naan nuyoo boobu rek ñu koy jël di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottali ñu ko mbokk yëpp rek waaye tamit ñuy ziare boroom xam-xam yi nekk ci biir groupe bi yëpp. dañuy siyaare ñëpp daal ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ci góor ñi ak jigéen ñi ñu di leen siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax rek nga xam ne rek képp ku ne ci biir groupe bi rek maanaam nuyoo boobu ñoo ngi koy teg ci sa loxo di la ko niiw di jaay di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa kon tey dañuy jéem a tàbbi mubasharatan ci liggéey bi rek xawaana ñàkk jot loolu nekk ci yitte waaye xam naa dañ ci jéem a góorgóorlu rek di ñaan yàlla def na ci tawfiq bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu see jàppale bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu bi gën a sell ci nuyu te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa M-Media groupe Nour Daarayni ñoo ngi leen di ziar di leen dokkeel di leen nuyu di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jégal ñu suñu rëcc rëcc di jaay ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam naan nuyoo boobu rek ñu koy jël di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottali ñu ko mbokk yëpp rek waaye tamit ñuy ziare boroom xam-xam yi nekk ci biir groupe bi yëpp dañuy ziare ñëpp daal ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ci góor ñi ak jigéen ñi ñu di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax rek nga xam ne rek képp ku ne ci biir groupe bi rek maanaam nuyoo boobu ñoo ngi koy teg ci sa loxo di la ko niiw di jaay di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa kon tey dañuy jéem a tàbbi mubasharatan ci liggéey bi rek xawaana ñàkk jot loolu nekk ci yitte waaye xam naa dañ ci jéem a góorgóorlu rek di ñaan yàlla def na ci tawfiq bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu see jàppale bu baax a baax a baax kon xam naa tey suñu jataayu al fatwa ci la ñu dellu siwaat rek di fas yéene dugg ci biir laaj yi de laaj bi ñu fi jëkk am tey mu tukkee ci soxna si soxna Fatma Ndiaye Cuba ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di rafetlu bu baax baax taxawaayam ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla taxawaay bu am am solo la ci am moom tey dafay laaj ne xaalat innaha tatanafalu baada azan al fajri al awal wa tusalli rakatay al fajri baada al azan al thani wa tusalli subha fa xiila laha la yasihu hada soxna si dafay laaj ne moom dafay def bu ñu noddee nodd gu jëkk rek moom day daal di jóg julli ñaari raka maanaam naafila toog nag maanaam di tudd yàlla ba ñu nodd nodd ak salaatu gi nga xam ne ci la ñu war a jullee ñaari rakaay fajari julli suba mu ne bu déggee nodd gu nga xam ne gi mooy nodd ak gi ñu war a jullee itam day daal di julli ñaari rakkaay fajar bu toogee ab diir ba déggaat ndax xam ne ñu ngay taxawal julli mu daal di julli jullik suba gi ñu ne ko nag xam naa noonu nga koy defee duni waaw xam naa loolu lay laaj daal su ko defee dañ koy dañ ko naan loolu muy def baax na dañ la mooy balaa hada saxiix maanaam noonu muy def dinaa fi la bu déggee noo dugg jëkk gi diggante boobu loola neex mën nga ko fee naa fi la suñu salaatoo itam da nga war a julli ñaari rakkaay suba soo ko jullee daa di xaar diir boobu ñuy toog ngir ñu liqaam julli julli farata gi foofu lañ koy jullee moom itam kon jéem yépp ay naafila la nga jiital sa naafila ba kere ñuy salaatu bu ñu salaatoo itam maanaam nga julli ñaari rakkaay fajar yooyu julli suba gi it mooy farata ji am ko war a julli kon noonu nga koy defee ne la maanaam ñi wax ne xañ na du noonu moom xañ na dañuy war a xoolaat jooju wax moom defe naa dese naa wér daal su ko defee beneen bi ci toppaat mooy comme weer wi ñu nekk ñu mën ko wax weeru olof muy diggiw tabaski dafay laaj ban bés lañu sopp ku ko ci woor waaw bu ñuy xool mbindam sëriñ bi de ci masaalikul jinaan dafay lim juróom benni wala juróom ñaari fan yoo xam ne yi dañ ne sopp nañu xemmam nañu ku koy woor lool ci biir at mi bu ko defee ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggiw tabaski bokk na ci juróom ñaari fan yooyu nga xam ne yi sëñ bi limaale na ko lim na ko foofu ci masaalikul jinaan kon daal bu leen neexee bu weer yu amee ñaar fukki fan ak juróom bés bu mu tombeel rek maanaam sopp nañu ku ko woor ndax bis yooyu sëñ bi lim muy juróom ñaari fan yoo xam ne ne nañ bëgg nañ ku koy woor mooy ñetti fan yi tam xarit ak fukki fan yi tam xarit ya bokk na ca muy ñaar ak bii muy laaj ni ci diggu tabaski bi muy ñaar fukki fan ak juróom yi bés boobu sopp nañu ku ko woor waaye tamit bu ñu demee ba ca weeru tabaski wa juróom-ñetti fan ya ak juróom-ñeenti fan ya moom itam sopp nañu ku ko woor ci la bokk muy juróomi fan a ngi noonu buñ demee itam ba ci ndeyu koor moom la ñuy wax rajab dañuy kësu rajab in muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ya bokk na ci bés yooyu nga xam ne yi sopp nañu ko ko woor waaye tamit buñ demee ba ci baraax la muy fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom yooyee bés boobee bokk na ci yi ñu sopp ku ko woor bu ko defee yooyu muy juróom-ñaar fan yi nga xam ne daal boo ko mënee jàpp bés bu ci ñëw rek soo ko mënee woor lu ñu sopp a woor la wala ak it koor gi nga xam ne gii imam Malik moom moom la doon woore nga xam ne dafay mel ni dafay woor dirëb jamonoom mooy weer wu dee rek wa wolof laay wax maanaam mu woor ci ñetti fan comme ni ko sëriñ bi waxee foofu ci Masaalikul Jinaan nga xam ne boo wooree ñetti fan bés benn bés bu ne dañ la koy defal fukki fan mu daal di nekk weer kon boo saxalee di woor ci weer wu ne fukki fan day mel ne yaa ngi woor jamono yooyu jëpp mel ne noonu la imam Malik doon woore ba tey sopp nañu itam lii ñu wax ayaamul baydi muy fan yi nga xam ne yi maanaam ci la weer wi gën a leere muy muy demee ba ca digg ba muy tàmbale ca fukki fan ak ñett ya ba ca fukk ak ñeent ya ak fukk ak juróom ya muy ñetti fan yooyu la ñuy wax ayaamul baydi mooy foofu nga xam ne weer wi day leer lool ci fan yooyu dafay leer ne ñetti fan yooyu itam sopp nañu ku ko man soo ko mënee tegale nga di ko woor ci weeru man doon maanaam bu weeru olof yi demee ba àgg ci fukki fan ak ñett nga woor ko ak fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom kon daal bu dee ci wàllu koor gi daal moom weeru diggi tabaski yi ñu nekk moom ñaar fukki fan ak juróom yi lañ ci gën a ràññ ci sopp koo xam ne kii mën nga ko woor yeneen laaj yi ci toppit maanaam mi ngi jóge ci Moodu Ngom Moodu Ngom ñi nga jëwriñ ñi daara ji ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla gën koo dëgëral bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne bii taxaw na ko ci liggéey bi moom laajam bu njëkk dafay laaj ne xokku man la xotamaalan wa tasaddaqa bihi mubasharatan koo xam ne kii dafa war forab xaalis rek daal di koy saraxe la wax tax na ne dane dafa am koo xam ne kii dane dafa far 2000 francs muy xaalis ñeent ci téeméer mu xool xool daal gisut boroom mu daal di gis koo xam ne kii yaakaar na ne yelloo na ko mu daal maanaam mu daal di ko koy sarax su ko defee loolu itam lañ ko ca tontu mooy maanaam xaalis bu ñu far maanaam de su ko defee noonu kooku dañ ko noonu lay juusu liman laqata maalan an yatasaddaqa bihi mubasharatan maanaam nit ki bu foree alal waru koo for rek maanaam daal di koy saraxe am na fatwa bu fi jaaran dañu noonu maanaam nit ki su foree xaalis wala lu mu mën a doon loo xam ne lu mu for la maanaam da ko war a téye déclaré ko di ko yëgle bu dee xaalis mu wax ne maanaam for na ab xaalis mbooloo mum dem maanaam wax fa wax ko fa su ko defee loolu dañ ko naan da nga ko war a def ba feek borom feeñut ba mat am at su ko defee nag soo ko dee yëgle ci mbooloo moo dem maanaam gisagoo boroom nga téye alal jooju muy xaalis boobu ba mu am ak yow am at lañ la wax maanaam nga doog a def nii lañ ca def mooy nañ ne ay xaddis yu wér la yoo xam ne yonent bi moo ko wax ne ne ñett yi maanaam lañ la wax bu la neex nga def ko ca alal jooju maanaam jéem am na ak yow am at te gisoo boroom benn bi mooy nga saraxeel ko boroom wala nga continuer di ko ko dencal muy ñaareel bi wala ñetteel bi mooy nga boole ko ci sa alali bopp su ko defee ñett yooyu daal lañ ne maanaam bu dee ni lu ñu for la noonu lañ ko war a def waroo ko daal di sarax rek waaye danga ko war a denc di ko yëgle boo ko dee yëgle nag ba matam at bu ko defee nga saraxe ko bu la neexee te saraxeel ko borom soo ko saraxalee borom nag su borom feeñee ñëw ni man maa moom xaalis bi wax na nam tollu su wóyalee sarax booba maanaam moom mooy moom sarax ba waaye su ko wóyalut yow da nga koy jox la nga foroon muy alalam te yow nga féetewoo sarax ba léegi su fekkee itam da nga ko ko dencaleen mu ñëw laaj la ko itam da nga koy war a génne daal di ko koy jox su fekkee ni da nga ko moomale woon sa bopp boole ko ci sa alal su ñëwee su borom ñëwee itam da nga ko koy jox mooma léegi nag ba tey dañ ci am tegtal bu wér ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane ku for xaalis wala alal ju mën a doon nga téye ko am at te gisoo borom déggoo kenn ku ne maa ko moom maanaam su la neexee nga jàpp ne lii daal alal la joo xam ne ji maanaam yàlla moo ma ko ommatal indil ma ko boole ko ci sama wërsëg kon daal bu dee ni wàllu for la daal loolu mooy li nga xam ne li maanaam jullit bi su foree moom boobu taxawaay la ci war a am waaye waru ko daal di sarax rek kon ñu daal di koy dégg noonu rek. beneen laaj bi ci topp ba tey Moodu Ngom moo koy laaj moom dafay laaj maanaam nan la ñu takk ab sëy daal ndax neneen ñi jàngut moom. dañuy fekk ñu takk ab sëy waaye ñoom daanaka duñ dégg lañuy wax tey te xamuñu ca dara mu bëggan daal xam nan la ñu takkee ab sëy bu ko defee dañ ko na aqdu nikaaxi an yaqula al waliyu zawajtuka ibnati aw uxti yi hada wa sifatul aqdi su ko defee ak maye moom ni ñu ko tërale mooy ki ñuy maye ku jigéen ki ak ki nga xam ne kii moom la ñuy mooy muy góor ku ci nekk dañuy wut koo xam ne kii mooy taxaw taxawaayu kilifa ak ku jigéen ka maanaam moo koy maye waaye tam wut koo xam ne kii maanaam mooy ñaan maanaam moo fay taxaw taxawaayu ku góor ko bu fekkee ni seeni waajur teewewu fa mën a taxawe loolu su ko defee ñaar ñoo ñuy tànn kii di ñaan nga xam ne góor gi lay ñaanal waaye tamit kenn ki di maye nga xam ne jigéen gi lay maye maanaam lañ ca dañ cay sopp rek maanaam ñu jàng ca maanaam ku mu neex nga jàng fatiha ak aw saar woo mën a jàng ci alxuraan wala ay ay alxuraan julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di bu dee ni maanaam kii ñaana daa di ne ko diw wax maanaam ki ñuy takkal soxna si muy ko góor gi ne ko diw doomi diw ak diw maa ngi koy ñaanal diw doomi diw ak diw muy soxna si muy ñaan ci farataas yàlla ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ak cen ci ndigalal ay waajuram maanaam kiy ñaan loolu dinañu bëgg maanaam bu jàngee fatiha jàng aw sar wala dara ci alxuraan maanaam mu baamu loolu ñetti yoon su ko defee ki nga xam ne kii mooy maye soxna si moom itam bu mënee mu jàng fatiha jàngit ay aw sar wala lu mën ci alxuraanu karim julli ci yonente bi moom itam sallallahu alayhi wa sallam daal di ko ne diw maanaam tudd turu soxna si ñuy maye may naa ko diw tudd turu góor gi ngay maye may naa ko diw ci farataas yàlla ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ak cen bu ko defee loolu moom itam mu baamu ko ñetti yoon ne na nag baat yooyu nga xam ne yii kii ñaan moom lay wax nga xam ne day jàng alxuraan ak usaar wala ay aaye daa di ñaan keneen ki itam jàng faatiha ak usaar wala lu mu mën ci alxuraan daa di maye maanaam ne ne bu ñu àggee ci baatab maa ngi maa ngi ñaanal diw doomi diw ke itam ne yegg ci may naa diw doomi diw ak diw ne na lang wañ dégg rek maanaam muñ ko wuñ ko waxee rek ca lang wañ dégg ba mu ba ba ña ko teewoon xam ne diw ak diw kat léegi moom may nañ leen ne baat booba baax na su ko defee bu fekkee ne ay arab lañu dégg ña fa nekk yépp dégg arab kon dañ koy wax ci langu arab waaye bu dee ci suñu lang itam nga xam ne olof a fi ëpp daanaka bu ñu jàngee alxuraan ak yooyu ñaar ñooñu moom loolu la ñuy wax rek kii dagal ko naan ñaan maa ngi koy ñaanal diw kenn ko may naa la ko su ko defee loolu mooy li nga xam ne lii mooy jiitu ca takk ga ñu dog a def nag loolu ñuy wax ab xutba la ca topp kon bu ñu ñaanee ba mayee ñu def ab xutba xutbatul nikaaxi lañ koy tuddee mooy wal afdalu an yakuna xablahu xutbatun wa hiya inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa nausu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallama abduhu wa rasuluhu summa yaqra'u qawlahu taala yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimuuna yaa ayyuha nnaasu ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijaalan kathiran wa nisaa'an wattaqullaha allazi tasaa'aluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana alaykum raqiiban ak yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa quulu qawlan sadiidan yuslih lakum a'maalakum wa yaxfir lakum zunuubakum wa man yuti allah wa rasulahu faqad fawza fawzan aziman nee na daal lii mooy xutba bi nga xam ne bii bu ñu mayee ba noppi sopp nañu moom itam ñu jàng ko foofee da doon sax li gënoon mooy suñu mënee jàng xutba bi bala ñuy ñaan ak a may ñu jàng ko waaye it bu ñu mayee ba pare itam may nañu ma mën nañ ko ko mën nañu ko a jàng xutba boobu kon xutba bi daal mooy baat yooyu ma doon wax moom la ñuy jàng foofee ba xutba wax bu ñu maye soxna si bari wala bala ñu ko maye su ko defee loolu ne ne bu fekk ni ki ñuy may sax teew na fa mën na koo jàng waaye itam kilifa ga mën na ko jàng waaye tamit képp koo xam ne ki teewee na jataay ba te mën koo jàng itam suñ ko ci joxee ndigal mën na koo jàng kon loolu daal mooy ni nga xam ne ni moom la ñu war a takkee ab sëy ci lislaam nga xam ne bu boobaa diggante boobu day daal di dagan yeneen laaj yi ci topp sëriñ daam seen moo koy laaj sama doomu bàjjen boobu maa ngi koy seer bu baax a baax waaw moom de xam naa magam sele seen laa gën a miin xam naa moom mel na ni liñ gisee dafa bariwut lool maa ngi koy seer bu baax a baax moom itam di ko ndokkeel moom dafay wax it lu jëm ci wàllu takkab sëy rek lay laaj ba tey mu ne xale juusu aqudu nikaax yi daaxilal masjid yi day laaj ne ndax biir jàkka mënees na fa takk ab sëy loolu itam liñ ko ci tontu mooy naam ya juusu istahabba jumhurul fuqahaa yi aqudu nikaax yi fil masjidi lil barakati xaala sallallahu alayhi wa sallam alinu haza nikaaha wajaaluuhu fi lmasajidi wadribu alayhi biddufuufi waaw maye ci biir jàkk kay maanaam lu ñu maye la lu dagan la lu mën a nekk la mënees na koo def ndaxte borom xam-xam yi ñoom ñëpp na sax dañ ne dañoo sopp sax bu ñu tëkkëb sëy ñu defe ko ca biir jàkka ja ngir ca biir jàkka ja maanaam buñ ko fa mayee maanaam ca la ñuy te maanaam mooy ëpp barke te defe naa ca biir jàkka ja muy fil masjidi muy fii gii mu jëfandikoo maanaam ñi jàng grammaire arab ba xam nañ ne fii moom ci lu jëm ci lu nekk ci biir maanaam ci biir lañ koy firee mooy fil masjidi mooy ca biir jàkka ja kon maye ko ca biir jàkka ja ne nañu sopp nañ ko lool ngir foofa ca la ñuy gën a yaakaare sax barke ba gën ca bari te it sallallahu alayhi wa sallam da ko feddali wax ko ci xadis ne alinu hazan nikaaxa su ngeen deeti takkab sëy na ngeen ko biral maanaam na ngeen ko yëgle na ngeen ko xamle wajaaluhu fil masajidi te ngeen di ko takke di ko fase ca biir jàkka ya wadribu alayhi biddu fuuf te ngeen bu ngeen maye ba pare ngeen tëgg tabala ya ngir wane ne diw ak diw may nañ ko ba ku ko déggutam xam ne ñooñu ñaar léegi moom may nañ leen maanaam ñu nga ca sëy ba ñaareelu laajam ba mu ne koo xam ne kii dafa waxaale marchandise joxe ca ab avance dese ca lu war a mottali waaye dafa dem ka mu doon waxaale marchandise ba ba jox ko avance moom mi joxe woon avance bi maanaam dellu si wut gisatu ko déggatu ko fenn te maanaam amut lenn lu mu jokkoo ak moom loolu moom lañ ko ci wax rek mooy comme dafay xaw a niru comme lee ñu doon wax ca àtte ku for ak xaalis rek boo dégloo fatwa ki forab xaalis ni mu ko war a def mooy kiit noonu la war a def xaalis boobu rek loolu ñu ko avance da ko war a denc téye ko su ko téye nag lu matam at lee ñu waxan ca lañ for rek maanaam mu doxali ko ca maanaam mu saraxel ko kooku nga xam ne ki moo ko avancé woon wala mu denc ko continuer téyel ko ko wala sax mu boole ko ci moom boppam maanaam bu fekkee ni avance boobu nekk naag moom lu matam at te gisut borom mu ñëw jël si ko kon li fi wax foofu rek mooy boo liiree fële ñu doon wax ca nit ki foron xaalis bi daal di koy saraxe soo ko dégloo rek lay atte foofu mooy atte ki nga xam ne kii dafa ñëw joxe avance bi te déggatuñu ko kon loolu itam moo doon itam ñaari laajam yi nga xam ne yi moom la doon laaj ci wàllu googu. beneen laaj bi ci topp Bachiru Fay moo koy laaj moom dafay laaj xukmu istiqbaalil xiblati aw istidbaariha inda xadaa'il xaajati dafay laaj lan mooy atteeb ki nga xam ne kii day faj aajo maanaam day tuur ndox wala muy dem ginnaaw kër maanaam jubloo penku bi wala mu won penku ginnaaw kooku lañ ko jox mooy laa yajuzu zalika ida kaana al insaanu fi saxraai lima sabata an nabi sallallahu alayhi wasallam min annahi an dalika waaw loolu liñ ko ci wax de mooy bu fekkee nit ki loolu bi mu ko def maanaam ci ak ndànd fooy fooy la nekk maanaam ak ndëneer koo xam ne gi dara waru ko maanaam dafa war a mooy xibla gi maanaam wërta jubloo penku bi waaye tamit wërta woon penku bi ginnaaw di def loolee muy def waaye kon dafa war a fexe ba ak wetab càmmeñam wala ndejooram wet gi féete penku keneen gi ci des féete saw kon bu fekkee ni daal foo xam ne fii dara waru ko buy tuur ndox wala muy dem ginnaaw kër daal la ca gën mooy mu faxe ba du jàkkaarloo ak penku bi waaye tamit du ko woon ginnaaw ndax dafa sax wér cëng ne loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko terewan amma fil buyuti fala xaraja fi zalika nee nag bu dee ci biir kër yi la nga xam ne yow léeg-léeg def xam nga li bari fi li ëpp fi ne nii dañuy wut ay wanag yoo xam ne nii fa lañ koy defee nee na moom bu fekkee ne moom wanag la nga xam ne fi ngay dugg am na lu la wër nee na loolu moom dara newu ca soo jubloo penku ak boo ko wanee ginnaaw yëpp moo yem bu fekkee ni dara wër na la foofu itam liñ ci teg ko mooy lima sabata fi zalika anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam faala zalika fi bayti Hafsata ne ne loolu yonente bi def na ko ci bi mu nekkee ci néeg soxnaam soosu muy Xafsatu gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka dañ ko doon topp comme journaliste noonu muy def rek nga xam ne moom lépp lu mu doon def rek dañ koy topp di xaj du maanaam na mu koy defee ba xam na mu ko defee ne ne yonente bi dem na aajo maanaam jublu Saam won kaaba gi ginnaaw won penku bi ginnaaw kon loolu itam su fekkee ni fi nga koy defee dara dara wër ne ne mën naa nekk daal waaye su la dara wërul nag da ngay fexe ba doo jublu penku waaye doo ko won ginnaaw yeneen laaj yi ci topp Serigne Ndiir moo koy laaj ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di rafetlu bu baax moo xam ne mooy itam taxawaay wax dëgg yàlla mi ngi gën a dalal suñu xel bu baax a baax di ñu soññ itam tey dinu yee dinu ubbil yoone bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla doole jàppale du jay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dafay laaj xukmu taxallufi anil jumaati li ajli al amali koo xam ne kii maanaam léeg-léeg day bañ a julli ji ak juma ngir liggéey boo xam ne bii da koy liggéey te it nam ko waxee mooy yu sàllil jumaata wa taxalafu anil jumaat yi nee na day def su jullee ajjuma tey su beneen ajjuma ñëwee mu bañ koo julli ji ngir liggéey ba muy liggéey nee na noonu la koy def daal su ko defee lañ ko cay tontu mooy fa yaxrumu ala man talzamuhu aljumaatu attaxallufu anha illa li uzrin mu'tabarin ka maradin aw safarin wa naxwihima ne ne kooku moom noonu muy def day doni waaw maanaam di julli ajjuma bu beneen ajjuma ñëwee mu bañ a julli ji wax dëgg yàlla loolu moom du loo xam ne lii moom la sharia santaane jéem koy wax dëgg ma ngi góorgóorlu bay julli bi ajjuma dafa waroon a fexe rek jéem koo maasale di julli ji ajjuma yépp mooy la nga xam ne lii moo ko war ndax ne ne dafay araam ci képp koo xam ne kii war ngaa julli ji ajjuma ngay bañ a julli ji ajjuma googee lu dul ni da nga am ngànt lu wér loo xam ne lii sharia moo la ko may te defe naa ngànt ya nga xam ne yii moom la ñu jàng lim ko mooy ku ca am ku ca am ngànt man nga am mën ngaa bañ a dem julli ji ajjuma daal maanaam limaalew ñu ca maanaam ab liggéey su ko defee nit ki daal bu fekkee ni amul ngànt lu wér-wér loo xam ne di buñ ko tegee ci charia charia nungu ko bu ko bu ajjuma jotee daal ak nu mu war a def dafa war a fexe ba dem julli ji ajjuma bokk na ci nag ngànt yoo xam ne dinañ la ko may mooy lu mel ni feebar loolu moom bokk na ca ngànt ya ak ki nga xam ne kii dafa nekk ci tukki ak yenn demee su ko defee dana ama taxalufu anil jumaati min ajlil amali wala yajisu illa ida kaana al amalu yastadii baqaa baadil afraadi daruratan ka tawarii fi l mustashfa wal xuraasati ne ne bañ a julli ji àjjuma daal ngir ab liggéey tax ne ne duñ ko may kenn lu dut ni liggéey booba dafa tënku ci ne maanaam boo demut liggéey daal maanaam sa ñàkk liggéey googu maanaam dina indi gàllankoor goo xam ne gii maanaam day topp dalay topp yow moomu nga xam ne yoway liggéey yi ak it ña nga xam ne ñi maanaam ñoom nga njaboote su ko defee ne ne liggéey bi dal bu fekkee ni bu fekkee ni soo ko bàyyee mu indi gàllankoor goo xam ne gi gu mittee mitti la gu diis a diis la ci sa bopp wala ci sa njaboot ne su boobaa lañ lay doog a may nag nga mën a bàyyi ajjuma ji te dem julli ji nga bàyyi ajjuma ji te dem ca liggéey ba su ko defee ñi nga xam ne ñi dañ leen di may moom ñu mën a bañ a julli ji mooy lu mel ni koo xam ne gi day ab docteur la ab docteur ne ne moom jéem day xettali nit ñi maanaam nga xam ne léegi day may ay urgence yoo xam ne da koy dikkal ci wàllu ñu feebar su tombeek ajjuma ñëw ñu daal di koy woo ci kooku nga xam ne ki dafa feebar moom kooku dinañ ko may mu dem ca liggéey boobee dem ca xettali ji kookee bu ko defee waxat warada ahadisun kathira ani rasul fiha at takidu ashadidu ala man yataxalafu an aljumaati bi gayri usrin shar'in gis nga ne ne dafa am ay xaddis yu bare bare yoo xam ne yonente bi wax na ko di ca taral di ca tëkku ñoo xam ne ñi maanaam dañuy bañ a julli ji àjjuma te ñàkk a julli ji ga maanaam lañ cay gàntale mooy doo ngànt loo xam ne daal charia moo ko teg ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ne képp koo xam ne kii bàyyi nga bañ nga julli ji ñetti àjjuma yoo xam ne yii maanaam tegu ci lenn ngantal sharia ne ne yàlla day kasta sab xol maanaam ak leer dóor ci mën a dugg waaye tamit noonu na bëgg naa ajuma jot ñu dem bay waaj a taxawat julli gi ajuma gi ma dénk julli ajuma gi keneen ku ko jullee ku ko jiite waaye ma dem di wër dëkk ba képp koo xam ne ki war ngaa julli si rek te julli si woo maanaam ma daal di lakk sa kër ak yeneen xadis yu baree bari daal yoo xam ne da koy wax rek ngir di ñu moytuloo maanaam bañ a julli ji ajjuma te tegu ko ci lenn ngant loo xam ne lii ngantal sharia la liñ ci gën a tegtaloo nag ngir di moytu di moytuloo nit ki muy jéem a góorgóorlu ba lu ko nar a gàllankoor ci julli jaajuma maanaam loola su ko mënee moytu mu moytu ko yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne yaa ayuha allazina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljamaati fasaw ila dikrillahi wa zarul bay'a zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun yàlla dafa ne yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen suñu noddatee di woote ci bésu ajjuma na ngeen daal di dox wuti ci julli ga te lépp loo xam ne lii yëfi àdduna la ngeen bàyyi loola te dem julli ji julli ajjuma ga ba noppi fa yanbaghi lil muslimi ixtiyaaru al amaal allati yatamakkanu fiha adaau shaairi llahi walaw kaana aaiduha almaadiyu aqalla min gayriha nee na daal li war ab jullit mooy mu tànn ay jëf ay liggéey yoo xam ne yii du ko taqaleek maanaam jaamu yàlla nga xam ne kii moom la war a jaamu maanaam wut ab liggéey boo xam ne bii maanaam du dox sa digganteek maanaam su jaamu yàlla dox ak jotee nga dem dem defe jaamu googee kon nee na daal lépp loo xam ne lii day gàllankoor jullit bi ba su jaamu yàlla jotee du dem defi ko booba liggéey su ko mënee bàyyi na ko bàyyi te dem seeti beneen liggéey boo xam ne bii maanaam du ko gàllankoor ci bu waree dem jaamu ji yàlla donte la muy amee ci liggéey booba sax moo gën a néew la muy amee ca liggéey bee ndax yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu yàlla ne ne képp koo xam ne kii ragal nga yàlla dëgg dëgg ragal ko maanaam nekk ca la nga war a nekk di def la la yàlla digal sa kemtalaayal kattan di bàyyi lam la tere itam ne ne yàlla dina la defal lépp loo xam ne lii dugg nga ci rek maanaam mu génn la ci génne jàmm dafa la ca tawfiix yoo xam ne ji ji kawe sa njot lay doon tey da ngay toog ba yàlla dalay jox ay wërsëg yoo xam ne maanaam foo mu lay jógee maanaam maanaam doo doon doonoon toog di xalaat ne fii wërsëg wi dina ma fa jógee te it ne ne képp koo xam ne kii wéeru nga ci yàlla rek na nga xam ne yàlla doy na la sëkk ci sa sa sa sa yitte yëpp sa soxla yëpp sa wet yëpp su ko defee jullit daal loolu la war a dund jéem a góorgóorlu kemtalaal kàttan ci lépp loo xam ne lii maanaam lu nar a wàññ ak jaamu yàllam la wala lu nar a dox digganteem ak jaamu yàlla loola mu su ko mënee mu won ko ginnaaw te doyloo yàlla wéeru ci yàlla te xam ne yàlla moo yore mbir yépp te wa ma min dabbatin fil ardi illaa ala llahi rizquha ku mu mën a doon rek ci kaw suuf maanaam yàlla moo yor sa wërsëg kon li nga xam ne nii moom la ñu sant ci jaamu daal nañ ci góorgóorlu suñu kéemtalaay kattan te bu dee wàllu wërsëg yi di nuy sabablu waaye itam sabablu ko it maanaam lu nu ca nar a gàllankoor ci jaamu yàlla daal nan góorgóorlu loolu suñu ko mënee moytu ñu moytu ko. kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax xam naa ñoo ngi jégalu daal xam naa moom lii mu laaj ni lu ama am solo la loo xam ne lii lu jar a bàyyi xel la su ko defee buntu bu yaatoo yaatu la maanaam mën naa gën a yaatu lool lool ndax. li ci rëcc ci ay xaddis daal bari na lool ay gis nga ne ay alxuraan yooyu ci yàlla wax su ko defee daal kon yal nañu yàlla doole defal tawfiix doole ñu dimbali di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba lépp loo xam ne lii maanaam moom la ñu war a taxawee rek suñu wàllu diine yàlla dimbali ñu ca ba loolu ñu mën caa taxaw bu baax a baax di dellu di ziar ñëpp rek képp ku sam ne war na ci biir ni ma defee rek góor ñeeg jigéen ñi yëpp soxna yi wax dëgg yàlla soxna yi ne ci biir ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ziar di leen encouragé bu baax a baax rek te xam ne lu baax rek moo am solo te sunu yëppi jamono rek maanaam dana war a gaawtu di jëkkalante dem ci loo xam ne li lu baax la ndax moo doon sunu njiglaay la àdduna ak alaxira kon yàlla na yàlla doolee defal tawfiq bi jëy seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu